Sénégal ci condition yu mucc ay waaye wax gouvernement dañu teg deuxième ay condition yu mucc ay pour ñu mën voyager wala nekk lu baax foofu te boobu léegi ki nga xam ne mooy suñu ministre monsieur taxaw pour loolu ma ñu ngi ñuy oor xalaat dañu idée ay xalaat pour ñu mu gën

la li li ëpp jël nga def ci am bopp am ci cër ñoo ñu xam ne qualifié wu ñëpp dañ bu ñu fa demee képp ku sa doomu réew nekk da nga ànd ak deuxième gaynde mu nekk benn supporter national waaye dafa bokk si association panafricaine des supporters mais association des supporters nga xam ne képp kuy africain mu ngi supporter équipe africaine bu fa nekk ñun nag yàlla bokk suñu match yi nekk supporter musu képp ku fa nekk africain. yaa ngi nekk si ginnaaw du dem gaynde nekk si ginnaaw ñoom moo tax foofu jógee wala nga xam ne suy jeeg dina waaye dina daje fukki millions ak yoo xam ne nekk fii nekk ci ginnaaw gaynde donc suñu dem nag nekk di wax ak suñu kilifa dama la koy wax suñu waxtaan bi dañoo jël ay matukaay. yu mucc ay loolu bi état du am ci si hôtel bi mën na nekk suba mën na nekk samedi mais li ci ma a am am na délégation bu jiitu préparé suñu ñëw xool dëkkuwaay xool toog ñu xam bu ñu ñëwee nekk macha allah lu mucc ay mais nga sam xel daal. li ñaan kay mooy actuellement bi yàlla yóbbu ñu fa jàmm ba ñu ñu am fekk fa jàmm ànd ak Sénégal yi ñu supporté sama kër yàlla ñaan ba ñeent ba ñaar téeméer xam ne ay supporters la ak ay invités extras yoo xam ne ñu ànd nekk benn voyage andoo bokk fa ñu nekk.

loolu am solo la ndaxte deuxième dernier seen mooy lan Sénégal de wax balaa lépp Sénégal ale Casa ale ale ale yooyu mais Casa du wala NGB du wala du G e Sénégal moo benn drapeau muy vert jaune benn ëpp na donc képp ku nekk ak sa ale dañ koy benn ale moo ale Sénégal su ñu ci leen tënk bokk fi ñu nekk bokk ñu sa bokk te boo nekkee ci réew réew mi defal la lépp mooy la la sécurité mooy la éducation yow bis lan nga defal sa réew liñ koy bokk na moo tax président de la république ba léegi saa yuy wax mu ngi jox exemple deuxième gain loolu tey mu war a ñu jël avion yoo xam ne Sénégal am na ko teg ñu si ñun mën a supporter Sénégal ndaxte kat bu kenn ku ne jugee sa alal tey Sénégal xam nga ko jugee donc ñëpp nañu booloo nekk benn booy suñu tool

nga xam ne yeneen activité yoo xamante fas yéene ko def kooku ngir ñëpp xam ne Sénégal bu weesu ci wàllu football bi am na yeneen fas yéene ko mën nañ ko wane. Sénégal qualification football la ko def mooy coupe lépp football na ma mais leneen na ma nag activité culturelle ndax Sénégal réew aada ak cosaan waaye yaa ngi gisam ngeen ne chaque fois bu daan tukki day jëlaat lépp teg ci valisam ndaa suñu mbir mooy jël Sénégal yëpp ko mosu wane ko suñu kenn waaye wane ko suñu cosaan ak aada bi ñu xamee Sénégal waaye wane fa aussi suñu amase suñu géopolitique waaye wane fa aussi ñu tamit suñu dayoo ndax Sénégal dafa am ay nit ñu am am xam waaye am ay xam ne mën na ko jéggaani fenn am leer nañu am gis la temps yi passé ñu jël fa ay prix cinématographique loolu na wane qualité humaine bi nekk fi Sénégal waaye xam ne ñoo jógee fi yi dem kenn ku ne am ci gox boo jógee kenn ku nekk nga nekk ci benn aada kenn ku nekk nga nekk ci benn diine loolu mooy sànni bu ñu def ñëpp ñu ngi fi ñun ñëpp kenn ku ne la man suñu demee dañ si wane as bu kenn ku ne wane as ñu boole mu nekk lu bari ñu takk fas fas moom ndax ndax ñun am na ba pare téeméer ak fukk ak juróom-benn dëkk la woon ñu doon xëcc ko pour qualifier nañ si fanweer nag bu demee nag. dañ fa taxawaay xam ne ba dama ne woon fii touriste da ngeen gis ni Sénégal la équipe bu am fulla bu am jom bu am ay mooy fu ñuy ñu wax ko sooy dugg si biir nga xam ne association lii la bëgg association lii la bëgg. association boo ci nekk nii ngay doxee nii ngay def loolu suñu yëngu bopp la te loolu bu ñu koy dox baax a baax ànd sa suñu commission ñu jël ay waaye nguur gi nga xam ne mooy jël responsable yëpp Sénégal yi fële ci dañ am seen aussi nawet bi dëkkal yi oo nañ ñu ñu waxtaan ak ñoom ba ñu partagé ba jël këtëb yëpp mu nekk nii fa bu ñuy kenn ku nekk di yor mais loolu lépp da fekk ñun suñu wàllu bopp. kenn ku ne amoon sa responsabilité boobu xam ne yow ambassadeur du Sénégal ñu dem représenté Sénégal bitim réew ñu ne dugg lépp Sénégal ñu dudam gaynde def na fi ay def yu bari def fi ay coupe du monde yu bari donc amuñu si benn tiitaange amuñu si benn xalaat xanaa kay dañuy fàttali rek te fàttali aussi yàqu ak yoon dara